ministre de l'environnement ñewon ci dëkk bu sel bi di Touba jotté a ak Cheikh Bass Abdoul Khadr Mbacké Abdou Karim Sall rafetlu loolu li nga xamné tek na ci bëttam muy ay garab yu nga xamné dañ ko jëmbë digënté Touba ak Mbacké. néna li nga xamné mom le président de la république diglé ci PSE vert bi. daanaka fekk nañ ko ci biir Touba. nee na kat Mbacké loolu fekk nañ ko fi ci biir Touba. duma tayal di wax. néna lu tay nak mukk di wax. ministre de l'environnement fi ñu dënk alam bi. nee na ministre de l'environnement fi ñu dénk alam bi. bu duggee Touba duggee ko ci ñaari voies yi. nee na su duggee Touba duggee ko ci ñaari voies yi. xelam ak xolam yëpp day nee na Mbàkke xelam ak xolam yëpp day dal. parce que noonu la ñu bëgg dëkk yëpp nee na ndax nii Touba mel jaarale ko ci ñaari voies yi noonu lañu bëgg réew mépp dëkk yëpp mel noonu. parce que loolu mooy programme président la parce que nee na kat nii Touba mel ci ñaari voies yi noonu la bëgg kat mooy programme président Macky Sall. xam ngeen ko jiitu ngeen ci. nee na xam ngeen ko mbakke ba pare tax nga tax na it ngeen jiitu ci. dañ koy sant yàlla. nee dañ koy sante yàlla nag. parce que garab njëriñ la. nee na garab njëriñ la. bu kenn umpale wut. bu kenn umpale wut. ci kër yi. nee na njëriñam ci kër yi. njëriñam ci àll bi. njëriñam ci àll bi. njëriñam ci dëkkuwaay yi. njëriñam ci dëkkuwaay yi. fii nag bokk na ci. nee na fii nag ci Touba Mbacke kër sëñ Bamba Xaadimu Rasuul bokk na ci.

mooy sàkku rek ñaan Mbacke. Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadre rafetlu loolu jotaay bi waaye dikkaat ci solo gi nga xam ne garab am na ko ci askan yi ak ci alam bi. nee na comme ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi waxee. di Cheikh Mouhamadul Mountakha. moom mi nga xam ne mooy borom liggéey bi. di borom dëkk bi itam. nee bi nga xamee ne ñëw nga fi. ci ndigalul président mi nga xam mom moom nga fi téwal ci li nga xam ne la di ittey réew mi itam mu tax laa jóg mu ñew ci itam ndax walu garab gi nga xam mo la tax jog ñi fi njëkkoon ci wa keur Serigne Touba ñi fi Cheikh abdul Ahad mas na koo def nii ngeen koy defee te ñi ko fi wutuwaat ñëpp itam noonee rek lañ ko yitteele woon ndax lislaam daf koo fonk lool ndax li ci nekk ci tiyaaba li ci ak li nga xam ne moo ci nekk ci ay njariñ te xam-xam andi ko kon nag bu yàlla defee président dénk la ko am ci yow yaakaar ngir liggéey bi dañ koy rafetlu bu baax a baax. neena sëriñ bi nee na mi ngi nuyu itam député Abdou Lahad Seck mi nga xam ne yéen ànd ñëw fii. kon nag. wàllu jëmbat gi nga xalaat. jëmbat gi nga xalaat. ci yoon wi. ak ci dëkk bi. ak ci diggante Ndakaaru ak Touba. sëriñ bi nee na ñu ngi koy lu bu baax a baax. ndax xalaat bu rafet la. kon neena ñing la ci sant di la ci soñu te koy rafetlu bu baax te fasiyene and ko ak yeen ndax xalaat bu rafet la bo xamne bu deme ba taxaw dana soppi fofa te garab bari na ay njariñ lool ndax bok na ci indi ab taw bok na itam ci lay dak ñak taw te moy li ci gëna tuti kon nag na ngeen xam ne yitte ju rëy la. boo demee ci yeneen yi nga xam ne bekkoor dafa yaatu boo demee ci yeneen réew yi nga xam ne. bekkoor dafa yaatu bekkoor dafa yaatu woon. dañuy njëkkanteeg dañuy njëkkanteeg jaww ji. dañuy njëkkanteeg jaww ji. di di jëmbat ay garab. ngir ji mën a soppiku. ngir jaww ji mën a soppiku. kon nag fii. kon nag fii. yàlla def na. yàlla def na. nii réew mi bindoo. nii réew mi bindoo. buñ ci gënee def yitte ci gënee def yitte rek. farlu ci ni farlu ci mën naa dem ba mën naa dem ba dëkk yi nga xam ne waroon nañu ca ne ci biir Sénégal dëkk yi nga xam ne waroon nañu ca ne ci biir Sénégal te désert mujj di fa dugg te désert mujj dem ba jeex lépp mën yitte rek akuk dogu ak yitte ju kawe moo cay tax a mën a àgg kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi koy bu baax di ñaan itam ci barkeb sëriñ Touba ni ngeen ko tambalé te sa kilifa jité won ko te Touba bok ci dëkk yi mu ñëk ñëw bi nga ñëk ñëw sax ngir jëmmal lolu yalla defal leen ci barké defal leen ci yok bu baax rafet nañ ci njort bu baax yalla def itam nak yalla def itam nak eh, magal Touba gi jëm si ndaje mi ñu ciy ci def de seqoog waa ngor gi ndax ñoko daan and tay ji lañ ko wara def ñu ko waran def sax euh, niki tay ci suba ñu ko waran def sax niki tay ci suba waaye yalla biñu yëgee ne yaa ngi fiy ne nañ ko rendal ba takusan 4 heures mu door tambali kon nak lolu bu tombe nonu xel war na cee dal euh, xel war na ci dal di la ci ñaanal bu baax. yitte ji nga ci am. ak yaakaar ji ci am ba teg ko ci sa loxo. yàlla defal la ci ndam. gannaaw dëkk bu sell bii di Touba ak jotaay bu nga xam ni jot na ko amal ca Daaru Tanzil ak xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Abdou Karim Sall ministre de l'environnement jot na dem fii nga xam ne mooy Daaru Muxti daje fak ay kilifay diine waaye jot fa jëmbat garab.